de Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kan moo mënoon a gëm li xew ci réew mi laaj la bu journal Source A xëy samp ci xëtamu li tax mu ñàkk ci réew mi xam nañu ko léegi benn fournisseur indien mu indi ci réew mi antirétroviraux yoo xam ne dëppawul ak bëgg-bëgg malade yi loolee tax garab yi dem sax ba far manqué ci réew mi Cyril mi jiite réseau national gi ëmb kuréel yi jaboote ñi amee jàngoroy sida ni ñu ci yéenekaay bi li antirétroviraux yi ñàkk ci réew mi tax na malade yu bari mënut mënatuñoo fajoo ñoo nga couloir de la mort jàpp ci yàlla sunu borom journal bi nañu te xibaar boobee nag waa pharmacie nationale d'approvisionnement dëggal nañu ko nee nañu ab am na fii la amoon ci àll Bofa Bayot ba l'observateur moom la xëyee juróom-ñeenti weer ci weer wi ñu nekk ba ñu dogalee ci àllu Bofa ba ay taxankat rayoon ci ñoom fukk ak ñett l'observateur xëy na dem seeti leen xool nu ñu koy dundee gannaaw jëyee joojee am na kenn ci ñoom ku leen xamal ne ba yëf xewee ak léegi ñu bari dañu leen di sajj xeef maanaam dañu leen di stigmatiser Edouard Da Silva mi chef de village biit mi ngi wax ci biir l'observateur li leen état bu Sénégal jaxasoo jaxasoo kuré ne jàngalekat yi réew mi nee nañu ba léegi nguuru Sénégal deful li mu diggoon ak ñoom te ko deful bàyyi ko tijji na xam ne njàng mu jaar yoon du fi mën a amee li am ci école Sénégal bi Sud Quotidien def na ko waxtaanu penc yi anam yi kilifa yi yoree njàng meeg njàngale mi résultat yu bon yi ñu nemmeeku ci réew mi ci examen bac yi examen BFM yi ak yu entrant sixième yi Abdourahmane Gueye bu UDEN Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS Alcantara Sarr bu SIENS ak Abdoulaye Fane bu UNAPES ñoom ñëpp joxe nañu seen xalaat ci Sud Quotidien ci waxtaan bi Lahat Jaxate ma ne woon chef de village bu Touba mosquée Les Échos ne nañu folli nañu ko ñàkk déggoo bu mu ñàkk déggoo ak maire bu Touba di Abdou Lahat Ka moo tax ñu wàcce l'observateur nañu moom Abdou Lahat Jaxate xalifa général des Mourides Serigne Mountakha moo ko fa jëlee lii il lay ñu wàcce ko dëgg-dëgg l'observateur am na lenn lu mu ñu ci baaxee Vox Populi Libération l'observateur xëy ñu baaxee xibaar bu yéeme bu xew ca Kaffrine genn gone gu góor gu toll ci juróom-ñaari at moom la magam dóor kuur mu faatu l'observateur nañu mbir yaa nga xewee ci village bu ñu naan wala lan Bougane nekk ca Kaffrine ñu romb Kaffrine dem Fatick feebar ba ñu fay dégg fan yi yëpp mu di feebaru deng le quotidien nee nañu feebar baa nga fay gën di law ndax léegi nemmeeku nañu fa juróom-ñetti nit yu ko fa amee soleil national nañu feebaru deng ba ca Fatick ñetti kaa lañ doon wax léegi ñoo ngi ci juróom-ñetti kaa Vox Populi nañu Fatick mu ngay gën di deng diggante Aïda Samba Queen bii sa dang na ba jëm ca dagg ñaari waykat yu jigéen ñi déggootuñu ubbilise ko li ko waral moo di li fi Aïda Samba waxoon ne am na ay waykat yu jigéen yoo xam ne bëgg ñuy wax ci ñoom bëgg def buzz moo tax bu ñuy def ay clip dañu ciy génnee seen yaram Les Échos nee nañu wax joojee Queen bis da cee gis boppam ba tax mu tontu Aïda Samba nee na Aïda Samba bu amoon forme bu rafet dina ko génnee waaye formam baaxul jagul Aïda gereesu kese la te gerees bu yàggee ci biti seey mu teg ci ne Aïda Samba bu ne soxlawul buzz waxul dëgg ndax bëgg buzz moo tax mu rocc ci yaramam wi yëpp di xeesal Queen Biz ne te sax Aïda Samb li muy woote bu dee dëgg la ci moom bu dee bëggu tawane ay formam nay sol li Soda Mama di sol